dikkati naa loxol neen la duggee ci direction générale des élections réew mi quotidien ne ma mandataire bu Ousmane Sonko bi loxoy neen it la génnaatee ca direction générale des élections lank ne ko duñ ko jox nag fiche parrainage bi la ñu def turbine yéen kaay leen maa ngi ni faax fa ma toogoon jóguma fa ci di leen xamal ne parrainage yu mane ne la sababam leen dongul ak président Macky Sall moom moo di doon ab tame yurée di segg nag ak di éliminer fayal laaxu ñoo xam ne adversaire am lañ moo ne day gannaaw ba ñu ko tàmbalee wax ne parrainage bi baaxul seggukaay la am na ñoo xam xam ne demoon nañu kalaame juge CEDEAO yi nga xam ne nag ñoo toog ci dénduk Afrique ni fi faa daal di ne loi bu parrainage bi ñu def ci réewum senegal baaxul santul yàlla nan teggi loi bi ci réew mi parrainage bi nañ ko dindi ci réewum Sénégal turbine yéene kaay naan man juge CEDEAO wax seeni wax nguuruk Sénégal jël wax yooyee déglu xool la leen saf ca mbir mi ñu def ko dem assemblée nationale nag yóbbu fa seenug loi coppet ci bii teg ci bee wàññi poudre faar ak capp waaye terewul parrainage ba moom ma nga rek dëju juge CEDEAO naan leen nguuru Sénégal naan axa kay day dañ yóbbu ci assemblée nationale joyanti defaraat gaaya naan leen waxuñu lii na dañ terewul ñu nga ci parrainage bi ba tey jii mooy gàllankoor laa ne la buñ tegal yenn ci candidat ngir ñu mën a jàll yéeni kaayib dee média bi naan man cim parrainage moo mën segg kay moo bon ci ay adversaire président sàll Sall waaye tam mooy wéyale dëgg-dëgg charte africaine bu démocratie lenn lu ànd ak démocratie laa la parrainage bi jëfu ko ci réew mi yoor boppam moo nekk hors la loi moo daal di nag caxat caxatee article L 47 bu code électoral bi le témoin yéen kaay naan maan état bu Sénégal ci boppam moo nekkul ci yoon ndax nag ay décision de justice yoo xam ne ñoom arrangé wu leen léegi dañuy lànk nag naa duñ ko defee ci réew mi démb mani la ngir bañ a jot décision de justice ba bàyyeekoo ca Ziguinchor ngir mën a jébbal nag fiche de parrainage mandataire bu Ousmane Sonko bi moom directeur général des élections dafa ne manul recevoir tey daal nekku fa huissier constaté na ko ñoom ay avocat Ousmane Sonko farlu ne fi ne daal état bi moo yor ak yetam di door fu ko neex l'info yéene kaay nan man moom Ousmane Sonko day man mani la na xam ni fa mu jëm a nguuru Sénégal ndox amagu fa bàyyi ci boppam la ñu fa sud yéene bàyyi la voix du sud nan man boo bëggee comprendre coowal Ousmane Sonko lii déglu ma kii di Ousmane Sonko kii di Mame Boye Diao kii di Bougane Gueye Dany ñoom nag la nitu système bi di dippee ay traître may ma nopp ma xamal la ni fii ci dénduk Afrique day lenn la ñu tàmm moom mooy président boo xam ne falu daanaka cig néew ngay génnee ca palais ba ca indépendance accès ba sunu jonn yàlla yi tey président bu falu fii ci Afrique danga naan faax toog teesu la mën a génneeti élection bu ñëw kay yow yaay jàll sa bopp moom yaa koy wutu fa yallaahu tey jii nag gaa yi dikk muy Ousmane Sonko ku ci mel ni Mame Boye Diao wala Bougane Gueye Dany daal dina xeli la nu bëgg a soppi ci dénduk Afrique daal dina caxat caxatee Afrique gu moomeelam fexe ba riigu ci nguur gi ak noo ko mënti defee day jeex ci Afrique tey kay africain yi ci boppam dañoo war a wutug nguur ci lenn benn objectif moom moo di fexe ba suxali seenu xeet seenu askan ba ñu gis seen bopp ne dëgg-dëgg am na ñoo xam ne dañuy fëgg dënn seen dënn yëngu ñu ne jàkk seenu askan ne leen lu leen jëmale kanam moo ma fi tax te loolee dañu koy daal di jëfee fayallaahu te xam nga ni jëfin googee arrangé wul ñi nga xam ne ay nitu système lañu ñoo xam ne ni la ba indépendance des indépendance ak tey ñi ngi féetoo ak nguur di doxee na nga xam ne noonu la nguur di doxee mooy lenn rek ne faax ci nguur lu ñu am séddoo fayallaahu dundee dunduk buur te nag ñaquk baadoola googee di sim cerek buur loolu la fi yenn ci politicien bëgg génnee ci réew mi loolee nag moo tax tuñ tuñel gaa ngi mel ni tulleeg maale am nay politiciens yoo xam ne fii ci réew mi dañuy daal di déranger la voix du sud nan man banxal sa baaraam Ousmane Sonko nga ca Mame Boye Diao nga ca Bougane Gueye Dany nga ca Abdourahmane Diouf ma nga ca Guy Marius Sagna ma nga ca ndax ñoom ci boppam ñoo jàpp ndaw yi naan leen fa ngeen doon xool baaxul xool leen fii mooy fan fi nga xam ne nag moo baax ndaw yi nga xam ne ñoo bëgg a suqali Afrique ndaw yi nga xam ne intérêt amuñu ko ci falu ndaw yi nga xam ne seen mbëbët moom moo di daal di jàppale seenu askan ndaw yi nga ne fi mu de débat bi ci langue politique gi dañ ko daal di soppi ñi fi nekkoon ni faax nii buur ñu jëlee leen fi teg fi ñoo xam ne ma ne la daanaka ñooy soppi système bi soppi ña doon doxal système bi andi fi politique bu yees boo xam ne ku ci tënku daal faaw nga xam ni Angleterre du pomme de terre tribune yéen a kaay nan kon en tout cas Sénégal tàqalikoowul ak coow fi mu ne nag foo làmb ma ngay bëx-bëxi yéen a kaay des média bi nan man demal ci njàng me njàngale mi Sénégal ci boppam dafa manqué ñu jàngal xale yi ay junniy jàngalekat la ñu ne moo manqué ci réew mi ku kaas ñu dàq nguurug Sénégal tëj làmmiñam waxu ci te fi mu ne waxi recrutement ay jàngalekat waxu ci bari nay ndongo yoo xam ne ci ay tant ci naaj bu tàng la nuy jàngee laaj ba samp moom moo di njàng mi nga xam ne fi mu ne moo mën a tax suñuy doom am xam-xam ëllëg ndax nguuru Sénégal def na ko priorité yéen kaayib des médias bi naan man bul dem desal ci man ma xamal la ni fayu courant mi ngi mel ni tulleeg maale ci réew mi tongal askan wi Sénégal institution financier yi nekk bitim réew xoj ko subvention téeméeri milliards ba mu doon jox Sénélec mu daal di koy gàntal Sénélec nag jàpp askan wi di xoj naan leen bi xañ ci yéen laa koy jëlee askan wi di tuñ tuñal ak facture yoo xam ne cher na lool l'exclusive yéen kaay naan man Amadou Ba laa yërëm Amadou Ba mii war a ngàlloo bilan président Macky Sall war a dagaan baatu askan wi laa yërëm yéen kaay bi naan man ay opposant Amadou Ba ngi nii émigration clandestine ñàkku xëyu ndaw yi dund goo xam ne cher na lool dynastie Faye Sall yorin goo xam ne bon na njëg yi xëy di yokkute kenn mënu ci dara scandale yi nga xam ne daal dinay bari lool ci yornu ko réew mi détournement yoo xam ne am na xoolal bu fond force covid 19 bi fipp gi xam ne moo am ci seen coalition jiital sa intérêt njaboot laata bu askan wi loyer yoo xam ne cher na lool dund goo xam ne métti na ñàkkuk dund gu doy ña àndut ak moom te bokk ak moom coalition bari lool yëg bopp ñenn ñoo xam ne ñu ngi ci nguur gi coowal 96 milliards yi rapport bu OFNAC ak bu ARMP yoo xam ne mujjeewul fenn détenu politique yoo xam ne bari na ci réew mi justice boo xam ne paaka ñaari boor la yéen kaay bi naan kon Amadou déglu ma de say adversaire ñoo ngi ngi ko def ci chef bu opposition bi complot buñ defoon ci Ousmane Sonko mu daal di tàbbi géej riigu gi ngeen riigu ci média détail yi wérgu yaram goo xam ne feebar na ci réew mi njàng meeg njàngale mi moom daanaka ma ngay sukuraat baykat yi nga xam ne ci réew mi ñoo gën a sonn kuy sonn syndicat yi nga xam ne ñoom it ñaxtu la ñu xëyee Amadou jàppal yow say concurrent ngi nii tribune yéen kaay naan kon ak coppet ci bii teg ci fee ci loo xam ne jaarut yoon Oulimata Sarr min déjjatee ca ministère bu économie ay soxna ci boppam ña ngi koy daal di naqarlu ndax nee yoon njëkk ab daal di jël ministère boobee te defoon na ci jéego yoo xam ni daanaka Sénégal a ngi ci doon gis boppam kon déjjëti bi ci boppam warul cere wul am na ñu naan Amadou ko yor ca Galoya mouvement politique bii di Galoya Renaissance te Amadou Sy muppi maama fa bàyyeekoo daal di koy jiite ma nga xam leen ni nag waa Galoya yëpp takku nanu fas yéene jàppale Amadou Ba fas yéene sax déjjëtee ca opposition ba daal di andil mouvement ba ñu àndandoo jàppale APR ni ki noonee Benno Bokk Yaakaar dëkk dëkkaan yi it ñu daal di leen di jël boole leen ci combat Taal Sall moom it weccoo na léegi Ismaïla Madior Fall Aïssata Taal Sall naan jamono ji mani la fexe ba détention yi yàgg yi jeex ci réew mi moo yitte gu njëkk gi Aïssata Taal Sall naan atte yoo xam ne amul xàjj ak seen jaar ci yoon ci bépp anam bu mu mënti doon néew doole ñu jox la sa respect ak doole joo mënti amit amul parparloo Vox Populi naan man desal ak man ma xamal la ni ca mbéy ca commune bu Bambilor ni ki démb takk na jër ñaar fukk ak ñaari hectares yoo xam ne Serigne Soy bu sekk moo ko moom moo andi coow la diggante sàndarma ak waa mbéy ñuy xeexoo daal di dal ci kaw mairie bu bambiloor bi daal di koy caxat-caxatee ba maar day taali daal di couper courant ba jaamaar looya daal di metti ba jéggi dayoo l'évidence yéen kaay naan maan gannaaw mbéy fii ci ndakaaru it benn terrain boo xam ne njabootuk faal toll ci ñaari junni mètre carré day andi nay jafe-jafe ma nga nekk ca peggu masaalikul jinaan tey jii ay politiciens ñoo bëgg ñëw taxaw nag daal di jël terrain bii ci njabootuk faal gi niki démb ma ni la lanu jot sommation ne leen daar daar nañu génn foofee ndax jàmbur la yéen kaay bi naan maan yi waxul